waxtaanee actualité ak Thioro Mbar Ndiaye commencé ko affaire bi nga xamante ne moom lañ tuddee affaire Lamine Diack journaux yu bëri titré ko tey. d'accord ah foofu nga bëgg ñu commencé ok amul benn problème. ko bindal nii boo bëggee. non déedéet déedéet bàyyi dinañ ci wax loolu après. mais en attendant affaire Moustapha Diakhaté yaakaar naa ne tey moom moo gën a euh, fes ci xibaar yi ndax te euh, presque ñëpp moom lañu yeewoo. voilà euh, les pourquoi du comment. yëpp mu demee yëpp nit ñi ñu ngi koy yàkkamti xam ni ñu bonjour Bijou ravi de vous retrouver comme tous les matins euh, yow ak équipe bi nga xam ne moom la ñu àndal mairie ak Sidex mais également ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy euh, seetaan un fa partout à travers le monde Sophie yow itam nuyu naa la euh, ni nga ko waxee tey ñu décortiquer un peu l' actualité et dañ koy démarrer ak dàq bi nga xamante ne moom lañu ñu dàq Moustapha Diakhaté ñu fàttali ne ba fii ministre conseiller la woon ca présidence de la République moom nag ñu wax ni dàqam li ko ci ñetteelu mandat bu président Macky Sall mu mel ni ginnaaw Sori Kaba naam Sori Kaba bijou mhm. euh, wax nañ ni que moom décret bi koy dàq defoon nañ ko avant donc tombe moo waral ay gaaf mhm. ginnaaw bi mu waxee ci troisième mandat bi ñun ci lañ yëg dàq bi mais euh, ay sources yu jege lool euh, présidence la république ñu ngi wax ni que tombé moo waral ay mais yëf yi yemboon na laata muy def émission boobu mhm. donc moom Sori Kaba ci lañ ko daal di c'était prévu voilà donc hier également ñu yëg itamit dàqu ko Moustapha Diakhaté ndax moom ñu fàttali ne dafa demoon ci benn émission bu ñuy wax seen jotaay ci Sen TV yëkkati ay kàddu wax ni président Macky Sall anam bi nga xamante ne noonu la bëgg a fajee coowal troisième mandat bi mënul nekk euh, euh, foog ñu xool naka la ñuy euh, waxee ak askan wi ak yu ni mel et puis surtout que président Macky Sall waxoon na ni que nul ne peut faire deux mandats consécutifs loolu moom yaakaar naa ni ba léegi kàddu yi mu ngi fi bind yi mu ngi fi moom moo ko moom moo ko waxoon deux mandats consécutifs mm-hmm. moom moo ko waxoon moom mm-hmm. président Macky Sall donc mu mel ni moom ci mandat bi la war waaye mel na ni yëf yi Euh, c'est une patate chaude en fait euh, entre les mains de ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, ci nguur gi parce que ñoom mel na lu ni mel la ñuy bañ a dégg donc Moustapha jaxate kàddu yooyu mu teg ci ni itamit moom mu ñu dàq ko ak mu toog la yemale mais du ko tere wax xalaatam xam naa ni loolu moo ko coûté tey postam bi nga xamante ne jëlee nañ ko fa moom itamit ginnaaw bi ñu ko dàqee démb yëkkati na ay kàddu gërëm président Macky Sall ci confiance bi mu amoon ci moom boobu léegi fàttali itam moom bi muy ñëw ak président Macky Sall boobu président Macky Sall faloogul mhm. donc yooyu yëpp fàttali na ko démb euh, euh, ci page Facebook am la ko jaarale ce qui est vrai quand même euh, fàttali ne Moustapha Diakhaté ak président Macky c'est une longue histoire d'amitié d'abord avant la politique donc mën nañ wax ni ñoom ànd nañ ci lu bëri traversé ndo ay péripéties yu bëri ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc tey xëj na politique ci ñun li ñuy gis mën na leen boole mais ci ku leen xam population moo gën a euh, kawe fi nga xamante ne euh, foofu lañ toll ci wàllu politique mais xëj na euh, ce que beaucoup de gens regrettent même boo duggee ci réseaux sociaux yi mooy le muut mbaa mott bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a imposer parce que d'aucuns pensent que à la limite ci dictature la ñu nekk mm. parce que bu fekkee nul n'a le droit de donner son avis voilà sur le troisième mandat day xaw a compliqué j'ai vu quelqu'un dire waa APR bàyyi leen di wax troisième mandat wax leen deux plus un wala cinq moins <laughs> Euh, comme pour dire troisième mandat moom le président Macky Sall di bañ a wax maintenant il faut qu'on soit honnête quand parce que boobu ak léegi moom le principal concerné déggaguñ ko mu wax jëm ne dinaa wuti troisième mandat mais xam nga yenn saay nit def ay signes yoo xamante ne dafay nekk signal fort mhm. parce que bu fekkee ni coowal troisième mandat man pour man euh, amul woon sax son lieu d'être ce débat là exactement loolu laay wax parce que mm. bu fekkente ne loo xamante ne voté nañ ko ba teg nit ñi def référendum ñu waxtaanee ko mm. ba nga xamante ne population beeg ñiy jiitee ñëpp d'accord nañ ci ne kàddu bii la ñu teg euh, xaw ma sax man waxu troisième mandat fan la jógee ba affaire yi war a nekk coow ba nga xamante ne euh, peut-être tombé waral ay gaaf comme ni nga ko waxee mais ku ci dem télé wala def émission waxtaanee loolu buñ xëyee dañ naan dàq nañ loolu mooy li dommage parce que euh, bijou Sénégal li fi gën a metti mooy constitution bi mën nañ ko caxat caxatee nu mu neexee nii <laughs> lool moo c'est ce qui est écœurant en fait moi j'estime que war constitution bi ba nga xamante ni lu ci nekk dañuy xam ne ñii la war a demee parce que moom président Macky Sall moom moo yëkkati woon ay kàddu ne nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Mm. Euh, moo tax que muy sévir en fait parce que comme ni nga waxee kii xaritam la euh, les leur lien c'est au-delà même de la politique est-ce que il a pas voulu donner l'exemple justement en sévissant sur son ami du euh, du moment que moom ba léegi il ne s'est pas prononcé dessus est-ce que c'est pas pour euh, dire que peut-être c'est un faux débat que les gens sont en train de soulever pour soulever lire des gens euh, li nga xamante ne moo di coow encore est-ce que du looloo tax mu bëgg fay mais problème bi fay feu boobu problème bi mairie mooy que ni ngay déggee ñii ne mënul def un troisième mandat parce que nangam ñi fare moom comme ay Moustapha mhm. ngay déggee ñeneen ne la son premier mandat n'étaient pas concernés mm-hmm. donc dañu bëgg dox un peu ci maayanu sénégalais yi moi c'est mm. ce que j'ai compris c'est-à-dire ba euh, ce discours de vérité là bi ñu soxla mm-hmm. pour tourner cette page et puis passer à une autre étape moo leeragul mm-hmm. donc mën nañu dem ba jamono boo xamante ne on peut nous dire ouais le premier mandat de sept ans bokk ci woon donc ci ci constitution bu bees bi président Macky Sall mu ngi ci premier mandat parce que man personnellement ay waxtaan naa ci ak ay nit yu leen jege plus ou moins et discours bii ma la wax moom la ñuy tenir mm. tu vas sur les réseaux sociaux da ngay gis ñoo xamante ne discours boobu la ñuy tenir mm. donc man ci sama xel bu gàtt ma jàpp ne à un moment donné on peut tenir ce discours là à ce Sénégal au Sénégalais te mën nañu te euh, foog ñu xam ni yaa des Sénégalais qui sont la prêts à nous faire revivre le 23 juin ndax troisième mandat bu président Macky Sall bu fekkee ne dina ko laaj pour man jaru ko Mm. parce que Sénégal moo ëpp solo jëmmu président Macky Sall wala jëmmu ku mu mën a doon. parce que ñoom après dañuy dem mais réew mi moo fiy def donc il faut quand même ak lu ciy mën a am que mu nekk ci consensus. d'autant plus que euh, c'était clair dès le départ. Mm. lii moom moo ko andi moom moo ko changé donc débat bi moom ci boppam moo ko waroon tëj dès la départ. man je pense que moom kese moom moo mën a ñëw waxtaan ak sénégalais def benn déclaration boo xamante ne mën na dalal xelu nit ci quand déjà commencé na am débat limogeage am na ci euh, débat yi du yam ci réseaux sociaux yi boo génnee tey mi ngi ci grand place ngi fépp et mun na jur euh, jaxasoo ci xelu nit ci mais bien sûr parce que keroog dégg nañu euh, waaye anamar ku ci mel ni Malal Talla sama juumul wax ni bu taxawoon tey pour laaj de troisième mandat dañuy jàkkaarloo ak moom donc pour man moom mi nga xamante ne moom mooy ndeyu mbili ji di président Macky Sall moom moo war a tëj débat bi une bonne fois pour tout parce que encore une fois moom moo ko waxoon moo ko wax moo changé moo joyanti moo andi donc de grâce voilà kon de grâce que gu ñu ñëwaat naan ñu euh, que du ñu que le le premier mandat n'était pas concerné nangam ak nangam parce que Sénégal dem nañ quand même ba wax waxee euh, bijou bëgg fi nekk règle mm. euh, gisoon nañ ni que moom avant daf ñu doon wax ni que bu faloo mandat bi da koy jëlee sept ans yóbbu ko cinq ans mm-hmm. ce qui n'a pas été le cas sept ans la toog après on nous dira conseil constitutionnel nangam nangam nangam recommencement lay doon euh, loolu moo tax souvent nit yi di wax ni que euh, euh, le exécutif dafa am baat ci pouvoir yi nekk ci réew mi yépp mm. gis nañ bu ñu demee ci wàllu justice c'est tellement compliqué parce que lu procureur dafay dépendre ci ministre de la justice bi nga xamante ne ci président lay dépendre mm. donc yooyu noonu yépp ay jafe-jafe voilà donc finalement lépp ànd a pas réellement cette séparation des pouvoirs lu ci nekk doxee waxee ko neexee mm-hmm. moo tax yenn saa yi da ngay dégg magistrat yi di kaas fii mm-hmm. euh, ñeneen ak ñeneen donc euh, féppay métti en gros. en tout cas euh, histoire à suivre on verra ba xam dina amaat beneen limosage par rapport ak coowu troisième mandat bi est-ce que <laughs> est-ce que loolu mooy raison véritable bi nga xamante ne moom moo tax ñu gis série de dàq yi ñuy gis ci biir euh, gouvernement bi histoire. à voilà réponse à ça nga baal ma. Mm. démb Seydou Gueye ginnaaw limosage bi yëkkati na ay kàddu ci RFM. Mm. wax ni Moustapha Diakhaté li tax ñu dàq ko dafa respecté wul discipline de parti xëy na discipline de parti bi moo nekkoon bu leen ci wax mu wax ci moo tax ñu dàq. peut-être en tout cas ñun on attend des réponses on veut savoir parce que quand dëkk bi pour ñun la ñi koy diriger ñun la ñuy liggéeyal donc ñun ñu ngi xaar ay réponses et puis ñu ngi suivre pour xool ndaxam euh, lii dafay continuer wala du continuer dina am ñeneen ñu ñu dàq histoire à suivre pour xam euh, yëf yi euh, fan lay mujjee ñu continuer actualité bi ak affaire bi nga xamante ne moom lañ tuddee affaire Lamine Diack. affaire Lamine Diack voilà dinañ ci ñëw balaa ñu dem après ci BRT bi Lamine Diack ñu fàttali ni moom moo jiite woon instance bi gën a euh, màkk ci wàllu athlétisme fii léegi ci euh, euh, ci ci àdduna bi mondial voilà li nga xam ne moom moo di I2AF ñu fàttali ni moom i tamit ñu ngi ko toppee woon coowal corruption moom ak doomam bi lee di Pape Massata Diack boobu ak léegi nag mi ngi bëgg yàgg boobu ak léegi je pense ça fait quatre ans bi ñu ko téye foofu la ca France mënul dem mënul ñëw moom Lamine jàkk procès wam jàpp nañ ko le 13 janvier 2020 lay doon moom ak Pape Massata Diack Pape Massata Diack nag moom wax ni pare na pour wuyu li nga xamante ne moom mooy laaju euh, justice française mais du dem moom France donc euh, mhm. euh, moom du dem foofu nga xamante ne fa la procès bi war a amee ñu fàttali ni moom fi mu toll ni dem tembe am na quatre vingt 86 ans moom Lamine Diack boobu ak léegi mu ngi toog France demul ñëwul loolu itamit doon situation bu xaw a compliqué Lamine Diack sax ci bi muy jàkkaarloo ak suñu naataango yu Jeune Afrique wax na ni moom jàpp na ni traitement bu injuste la am ci moom li mu représenté yëpp ci àdduna li mu représenté ci wàllu tàggat yaram euh, donc moom bu amee jafe-jafe bu mel ni bu taxee mu am ce traitement là loolu nekk na lu ko éclairé fàttali euh, joué na un petit moom Lamine Diack mm-hmm. wax na ni na frère am 99 ans rien ne lui dit que ko gisaat wax na itamit ne ay sëtam gëj na leen gis euh, namm na toog foow ak ñoom waxtaan ak ñoom mm-hmm. donc joué na un petit sensationnel bi muy waxtaan ak suñu naataango yi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Jeune Afrique fàttali ni moom Lamine Diack coowal corruption lañ ko toppee woon biñ ko ci toppee sax euh, yëkkati woon nañ ay kàddu wax ni moom koppar yooyu utilisé woon na ko ngir campagne présidentielle du président Macky Sall atum 2012 euh, lim ci euh, jublu woon mooy fexe ba président Abdoulaye Wade daanu. moom la Lamine Diack yëkkati ay kàddu wax ni euh, boobu euh, dafa am juste injustice boo xam ne moom ànd ci woon muy troisième mandat boo xamante ne euh, moom la président Abdoulaye Wade bëggoon laaj alors que c'était pas légitime mm-hmm. donc loolu itamit ay kàddoom la bi muy jàkkaarloo ak suñu naataango yu Jeune Afrique ñu wax ni tamit JO atum 2022 Sénégal la war a amee donc waa Jeune Afrique itamit jàpp ne xëj na dina participer ci ci ci de manière très favorable ci traitement bi nga xam ne la Lamine Diack parce que autorité yu réew euh, bitim réew yi bindoon nañ président Macky Sall ngir sàkku rek ci JO yi ak lu ni mel que ku nekk euh, mën ci def la main à la pâte pour mu euh, pour ñu mën ko amal ci anam bu gën donc est-ce que dina tax coowal Lamine Diack am beneen tournure yooyu yëpp ay laaj yoo xamante ne ñu ngi koy samp mais ak lu ci mën a am lu ñu koy toppee ci wàllu koppar takku na loolu wàllu guerre la koy toppee itamit di corruption mm-hmm. moom Lamine Diack peut-être li ñu ci doon ñaawlu rek bijou depuis le départ li ko dal tey xëy na bu daloon tubaab wala keneen traitement bi du doon lu même mhm. euh, donc c'est parce que sénégalais la moo tax mu am euh, waa Europe am taxawaay bi nga xamante ne moom nañ ci am ñeenti at en vieux de son âge demul dikkul privé ko de euh, liberté ko de comme ni mu ko waxee mënul gis euh, famille wam parce que ñëpp mënuñu dagg billet dem fekk ji ko France donc xëy na ñi mën a dem rek ñooy dem fàttali ni lu woon nañu lu yàggul dara doomam bi di Khalil Diack ak Pape Massata Diack mais Pape Massata Diack moom depuis début procès bi moom rek la ci turam di ñëwaat daanaka mm-hmm. moom ak euh, ginnaaw wajuram bi di Lamine Diack donc li ñu ci mën a jàpp mooy procès bi le 13 janvier atum 2020 lañ koy ubbi ca France. on espère franchement déjà quatre ans sans nga nekk sa njaboot métti na métti na sénégalais yëpp métti africain yëpp surtout nit koo xamante ne ndomba tànk bi mu amoon moom amoon na ko fi waroon nañ am luñ ko xoolee mais bon euh, affaire à suivre comme euh, affaire bi njëkk a jàll